sen cabinet Touba Tawfekh santé mo len indil produit bu soxol góor ci negu sey waaw waaw mom Touba Tawfekh santé mo len indil garab bu bax ci kom diko ko ci negu seyam diko doli katan comme ni mu waré ani ñu doon waxtaan ak jabar ba fajar ndax ñak man dara ah mbokk yi lolu jeex fi gam katan rek ku gi dina neex rax ci doli yow mi nga xam da nga manké maniw ah jëlal garab bi nga moy gam katan ndax day defar sa maniw ba mu baaxa baax dolli ci la garab bii di gam kàttan dafa baax ci it ndax da koy traité ba mu set wecc ak Touba Tawfekh sëy bu neex te dëgër moo di boroom dalailul xayraati yitteem lu dul ku ñëw mu faj ajaati mu ngoog mbokke xarit yi comme niñ koy defee saa su nekk am naa yaakaar na jëmm ji ah, kenn dootu ko présenté fii ci réew mi waaye itam dañ leen koy faral ah, di sawar di leen ko andi mu jàkkaarloog yéen waxtaan ak yéen ci li nga xam ne moom mooy wàllum wër-gu-yaram ah, di leen fàttali ne toujours yéen a ngi ci eh, cabinet 100 pour cent bio ànd ci ak sëñ Babacar Diop fii nag yaakaar naa ne Ah, da ngeen am mbégte ah, toujours ah, di di di fi ñëw di seetaan si waaye itam boo leen jaaxlee di ñëw di xool naka ngeen di def pour am wér-gu-yaram parce que adduna bi moom yaakaar naa ne lépp luy wér-gu-yaram rek moo gën lu nekk comme niñ koy defee saa su nekk sëñ bi lañ koy bàyyi mu nuyu leen waxtaan ak yéen tey nag ñu dikk ak yéen ci ñaari problème yoo xam ne sonal na lool lool lool sénégalais yi tey nag alhamdulilah la ñu wax alhamdulilah bañ ko seetee mu waxtaan seeg ñun waxtaan bi dana nekk ci lan mooy feebar bi waaye naka la muccee ci feebar bi waaye itam képp koo xam ne am nga ci feebar bi naka ngay def ba faju ah, loolu daal lañ fas yéene waxtaana moom feebar yi ñu andi tey bokk na ci prostate yaakaar naa ne ah, bëri na ñu sonal bëri na ñoo xam ne indil na leen ay gàllankoor waaye itam lu mel ne hernite tamit daañ ci waxtaan lu bëree bëree bëri sëñ Babacar ah, ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la wax nga nuyoo mbokk yi nga xam ne ñu ngi toog di la xaar boobu ba léegi aouzu aw nu koy yaa mu xëy na ubbi kana di nuyu mbokk internet yi ñu suivre hmm. di leen di kontaan ci dalal bi ngeen ñuy dalal. Hmm. ndax kii euh, wax ko déglu la bëgg. Hmm, boo gisee ñuy sonn jamono bu ne di def ay vidéo bëgg nañu partager ak euh, ñi xam-xam ñor. ak suñu connaissance bokk ak nit ñi. loolu moo tax euh, lii daal. Mhm. Euh, liggéey laa ko def boo xam ne dama ko boole sama ay ay occupation. macha allah waaw. en tout cas rafet na parce que comme li nga wax rek tey ki nga xam ne jaaxle woon na toog jël téléphone am nga wax ko nan lay def ba mu faju fan lay war a fajoo wax ko lu mu war a moytu yaakaar naa ne loolu jaamu yàlla gënu ko rey te yaa ngi ci ànd ak xol bu rafet toujours di xool naka la sénégalais yi amee wér yaram rawatina euh, sénégalais yi sax laay wax waaye tam boo xoolee ba bitim réew côté tubaab yeeg yëpp macha allah Ah, gis nañ tamit commentaire yi ah, gis nañ tamit suggestion bi ñu jox mooy que bari na ci ñoo xam ne duñ ay doomu sénégalais dañuy gis l'importance bi ngay waxtaan ba ñuy ñaa sàkku sax pour ñu koy wax ci français ah, donte ñu ngi koy def parfois waaye tam jot bi moo ko doon maye lii nag dañ lay ci profito di ci sant képp ko xam ne yaa ngi koy suivre parce que du ñàkk it ñoom ñu bëgg laa sant parce que yombut daal nga volonté toujours pour que jaamu yàlla yi di mën a am wér-gu-yaram waaye tam dañuy dugg ci thème bi tey euh, prostate nekk loo xam ne euh, dëgg fa yàlla bëri na ñu mu sonal waaye tam bëri na ci ñi mu sonal ñoo xam ne xamuñu lan moo leen dal donc nga yaatalal ñu tuuti ci prostate ba kii seetaan euh, bu bu ci bu ko seetaanee rek fekkee li ko daloon xamu ko prostate la moom it mu mën a mu mën a xam lan mooy prostate. waa prostate cër la muy organe génital hmm. cër la bu nekk ci góor. bu nekk rek da koy am. Mhm. léegi su demee ba nga xam ne euh, dafa am euh, hypertrophie. Mhm. maanaam dem ba hypertrophie bénite dem ba rëy. Mhm. am déformation par rapport ak taille normale bi. Euh, la ñuy wax ne diw dafa am feebaru prostate. nga xam ne bu commencé am dinay waral ci moom muy am ay saw yu jegeyaantoo rawatina guddi mhm. mën na jóg guddi gi cinq sept neuf parfois sax mën na ko ëpp mhm. fois ci guddi gi bu mu sawee ba pare rek dafay sentir ne saw bi yëpp demul fekk dafa day day prostate mooy naju ba nga xam ne mhm. du mën a du mën a du mën a vide lépp kooku bokkut ak koo xam ne dafa naan ndox mu bari ci guddi gi ba tey bokkul am na ñoo xam ne naan benn kaas rek même bu ñu naanu sax du tey guddi dañuy jóg. Mhm. donc kon loolu dina tax ki xalaat ne de sawam yu bëri daan naan lu bëri it moom it mun na tester essayer benn kaasu ndox rek xool ba xam dina saw lu bëri. Euh, bu dee prostate moom feebar la. Mhm. nga xam nit ki moo xam benn kaas la naan moo xam naanu. Mhm. dafay am saw yu jegeantoo. rawatina guddi bu tëddee. bañ a ko sax moo tax ki ngay faj prostate bëri na li nga koy jox da ngay dem bay bëgg a tëdd naan ko. mu vidé mu vidé eh, déchet bi nekk si prostate bi. Mhm. ndax eh, am na ñoo xam ne. Mhm. loolu symptôme la ci muy saw bëri bi. Mhm. constipation bu régulier maanaam di dem ba yee hémorroïde. ndax dafay parfois dafay ànd ak hémorroïde. prostate nga xam ne bu njëkk mag ñi lañ naa wax lay dal feebar mag lañ ko daan woowee mais léegi ñu gis ne xale yu bëri dañ koy am te duñ ko xam. bu defee mën na mën nañu di faju hémorroïde mm-hmm. te fekk ne dañu amaale prostate mm-hmm. Mm-hmm. Euh, ñetteel ba aussi euh, am ñoo xam ne daf leen di fat seen sawukaay buñ taxawee pour saw mën nañoo taxaw deux minutes dara du génn ñu taxaw bu ñu forcé nag dal dara door génn fekk yooyu première fois bu ngeen ko gis rek loolu présence u prostate la Mhm. Euh, wala infection waaye bu dee infection la day changer couleur saw bi mhm. day jaune ba mel lu xaw a jàpp beige wala mhm. marron clair léegi nag bu dee euh, prostate nga gis moom saw bi day weex parce que mm, feebar la comme saw normal lay def mais jege yantoo bi ak yéex a génn bi mooy tax nit ki xam ne euh, prostate mu ngi ko dal waaw prostate э, kan la ëpp lu muy dal ku góor ki wala ku jigéen ki. prostate foo ko dégg rek góor lay dal. Mhmm, góor rek lay nekk góor rek lay nekk. Mhmm. bu dee nag euh, ñi nga xam dañ koy opere mhmm. surtout Sénégal fii da gis koy éliminer ba nga xam ne du ko amati. waaw bu ko defee kooku bu ko amatul dootul mën a procréer. dootul mën a am doom ilaa yawmi diin. ah ku waaw ku mën doom. te pourtant feebar la boo xam ne bu yàgg ba léegi. Mm-hmm. Euh, dafay wér ci traitement africain bi. Mm-hmm. garabu olof da koy faj ba mu wér. Mm-hmm. Euh, ñu gis ne bitim kii euh, lu gën a bëri mag ñi lay lay lay gën a sonal. kilifa yu bëree bëri fii ci Sénégal wala ci Afrique ba yenn njiiti réew yi sax feebar boobu moom moo leen di yóbbu prostate. waaw. parce que dafa nëbbu te dafa xaw mel ne lu laaj kersa. waaw léegi moo tax nit ki bu ko gisee ay ay ay ay bu gisee rek. Mhm. naka naka teel a faj. Mhm. tey euh, mhm. comme loo xam nga ci lu am solo mu nekk loo xam ne. a ah, tey boo ko amee bañ dindil la ko rek di nga am jafe-jafe am doom ah, te ah, gis nañ ne fii ci cabinet bi dañ ko fi traité ba mu uh, jeex tàkk ba nga amaat wér-gu-yaram tey lan nga mën a baaxee ki nga xam ne jaxle woon na di la seetaan nii naka lay def ba gis la naka lay def ba jokkoo ak yow pour que mën a mën a mucc ci problème bi daal. waaw nga xam ne Rossa daf ko téye ba mu fatt ba mu matul saw. Hmm. Euh, sunguf lay duur baax na ci mhm. tooy mooy garab boobu ñuy faje tooy te mu tax mhm. xooj bu ko naan baax na ci lu mel ni mbante maare ren bi mhm. togg ko naan ko baax na ci yooyu yëpp dina ko soulager le temps que muy am moyen pour faju wala muy am temps pour faju voilà léegi loolu daal moom mooy liñ ci baaxee nit ki Euh, lu mel ni jus daxaar mhm. képp koo xam ne ni bëgg nga bañ prostate mhm. euh, bëri di ko naan mën na mhm. mën ko prévenir euh, lu mel ni bëri di lekk naajo ak doom yi wala xaal ak doom yi wala mu fexe ba di jëfandikoo tamaate Mhm. tamaate lu bari yooyu yëpp day tax nit ki prévention prostatique la euh, kon yooyu alimentation la yoo xam ne mën na ko boole mën na mun na ci mun na ci mën na ci bàyyi xel mhm. topp ko ba incha allah du am loolu ñuy prostate wala dina ko yéex a dal mhm. euh, macha allah waaye tam euh, am na ci